bi sëriñ Moustapha pare bu sëriñ Abdou ci laa jël kàddu fekk Pape El Hadj gi ne ma kaay ma nett la benn anecdote anecdote bu amoon fii mu ne ma dañu ànd ak euh, Cheikh Ibrahim Niass Cheikhul Islam bi sëñ Babacar nelewe nee na biñ ñëwee ci rawdu sëriñ Babacar nee na bàyyi ne leen dégg ngeen baat bu neex bi jàng sóoratu yaasin ci biir rawdu bi bàyyi Ibrahima Niass wax leen loolu alay Papa Alaaji Moustapha Guèye ma ko nettali de bam ko ba koy may ma jël sama kàddu ma di ko ca nettali sëriñ Moustapha yeggale ko bu sëriñ Abdoulaye nee na ba mu ko waxee ñu ne ko ah ñes loolu de yow yaa ko dégg seetal loolu nga xam ni ñoom duñu cuune ay kàngam lañu kooku nag juddoom jaar na lu ne ndem ñi nga xam ne ci ay foo lañu ne nekk ci seen bakken topp seen bànneexu bakken di dajale ay doomu aadama ay junniy junni ay centaine de doomu aadama ñuy jaxasoo góor ak jigéen suñ fa jógee mooy yàlla ku ñemee responsabilité boobu war nga xalaat boo dee boo dajeeg yàlla bokkul ak bii nag di góoru yàlla di rajulun min rijalillah bàyyi góor la ci góor yàlla yi boroom xam-xam bu mas a dajeel seen daje buur màkka déglu nga ko am déglu woo ko ndoy daje ba saf dafa mujj buur màkk nangul ko boroom xam-xam ya fa dëkk nangul ko laaj ko fan la dëkk fu mu jàngee est-ce que dafa jànge Azhar mu ne leen non parce que jàppoon nañ ne ku am xam-xam Azhar nga war a génnee bàyyi fekk leen ñoom ñu toog jànge Azhar ba génn ak ñi jàngee feneen bàyyi yéem leen ti jógee Sénégal loolu mooy beneen affaire c'est autre chose kon le 22 ña dëkk Taïba ñu wër Taïba kuy sénégalais jàppal ne sa teew farata la gis nga Assane bésu nit ku yàlla gërëm soo ca teewee am ca ngërëmu yàlla la te am na ñoo xam ne ku jóg ndax ñoom yàlla jóg ci yow ndax yàlla jóg ndax yow man kaana fi xaajati aqi kaana kaana law fi xaajati man kaan fi xaajati aqi kaana laahu lahu fi xaajati ku ne ci bëgg-bëgg morom yàlla ne say bëgg-bëgg te dañu wax ne cofeel ñu koy xamee ci jafe-jafe cofeel ñu koy xamee ci jafe-jafe maanaam jamono neexul weer wi sori na fayee koo guma yoon wi daa sori taliba daa naqari ci la ñuy xamee ko sopp ci ngay fabu dem mais bu neexee ñépp jog moo tax shaayir ba waxoon ko ne ko sopp na la tar jaral bul xool sori bul xool yoon wu naqari bul xool dara jógal nga dem kon nag ziyaaru tay bàngo ci ndiga turu xalifa be njaboot gee taalibe gi yépp bokk daje ji fa rek jëriñu ci leeri góor gi jëriñu ci barke góor gi jëriñu ci ay mayam kon tey bangu di le 22 mars incha allah muy dëkk bi bàyyi ganee àdduna bàyyi di kan alquran ju sotti bàyyi di kan sunna yonent bi ju sotti dafa wax ne maam cheikh su gàmmu ñëwaan dégguma ko ci kenn ci gémmiñam laa ko jëlee maa ngi ay audio maa ngi ay vidéo ci tool yi nee na su gàmmu ñëwaat maam Cheikh day wax ne dem leen ngeen woy Busayri yi téeréem bi Hamsiya wala burdu bi tagg leen borom bis bi muy yonent bi bu leen ci boole keneen ndax xam jamono loolu la bàyyi wax ne maam Cheikh loolu la daan wax maam Cheikh مشرحة همزية برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام